ça n'a pas été national non non ça n'a am Sénégal ba ñuy tànn constitution Sénégal c'est pas un débat national moo la la première constitution du ñoo gis ni la constitution de la cinquième république nous va gars yi incorporé ko xaw ko euh, xaw ko tropicaliser comme on dit ils ont un peu tropicalisé la constitution de la cinquième république constitution bi xam ne ñi ko bind ñëpp les quatre maa leen andi ñoom ñëpp ñoom Jacquinot la ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Guy ñëpp c'est des francs-maçons en ñoom ñëpp donc tout ñoom ñooy les auteurs sax de la cinquième république en réalité ak De Gaulle avec son ministre Michel Debré donc ñun li woowee tey Sénégal mais rien n'est sénégalais dans ce léegi ñun dafa mel ni amuñoon histoire avant tubaab beeg naar bi di fi ñëw n'est-ce pas dafa mel ni ñun jàpp ñu ci dara et pourtant il y avait organisation sociale une organisation politique ñun on avait fii des républiques euh, koo xaw ma ko léegi xaw ma ndax xaadim la wala mais on avait des républiques les lébu c'était constitué presque en république hein avec les penc ba léegi sax man maa ngi damay reconstituer un peu l'histoire des penc euh, maa ngi si def benn travail sax euh, ak des amis donc histoire du penc yi l'organisation sociale administrative politique la place de la femme dans l'organisation lébu qui était un matriarcat très important jigéen dafa amoon pouvoir yu extraordinaire aussi bien en tant que kiy nekk diggante yàlla yàlla yi ak le peuple comme tamit en tant que ñuy doxal dëkk bi donc euh, ñun li ñu bëgg a suñu dëkk mel ni jàpp ñun ci dara wala ñun ay mala la ñu doon ngembu di ngembu di di daw ci àll bi mais c'est pas vrai loolu amul et donc euh, balaa ñoo mën a tabax dara balaa ñoo mën a dem de l'avant il faut ñun nangu interroger fondation yi xam ne fa la ñuy yaakaar ne fa la taxaw te ay taxaw ñu si euh, il faut ñu nangu ko interroger nangu ko amender euh, nangu restituer la vérité à l'histoire pour mën a nag envisager de nous projeter dans un dans un futur proche dama jàpp ni lii euh, obligation la en tout cas pour man donc dama dama nekkoon di di xalaat bindoon naa sax benn affaire bu ndaw pour jàpp ne lii moom bëggoon naa ko sax lire pour revenir rek lu Ababacar doon wax sànq si Georges Hardy qui a été le premier inspecteur euh, de l'enseignement fii dans l'AOF il disait ci euh, c'était un rapporteur en 1931 euh, ci congrès international pour du présent dans les colonies n'est-ce pas il disait la France ne demande pas qu'on lui procure en série des contrefaçons d'Européens n'est-ce pas fait que chaque enfant la euh, que chaque enfant né sous votre drapeau tout en restant homme de son continent, de son île, de sa nature, soit un vrai Français de langue, d'esprit et de vocation. Voilà l'entreprise de l'école. maanaam l'école de Jules Ferry école bi ñu topp ñu gëm ni mooy école Jules Ferry école bi lii moo nekkoon vocation mais il le dit en 1931 lii c'est officiel lii moom vraiment euh, du ay conspiration comme dañoo tàmm wax ne ay conspirationnistes lañ donc euh, il dit que l'entreprise dëgg-dëgg c'est de faire gars yi ñu nekk ay français d'esprit et de vocation lii nag saa veut vraiment tout dire ça veut tout dire donc xoolal Sénégal aujourd'hui ce qu'on appelle en tout cas le Sénégal rue yu nekk Sénégal yëpp majoritairement ñun Sénégal mooy dëkk dëkk bu spécial la man dëkk bi dafa maa jaaxal nag sincèrement parce que dëkk la bi nga xam ne dañuy honorer ceux qui nous ont fait souffrir maanaam ceux qui nous respectent pas ceux qui nous ont euh, bastonné ceux qui nous dañ leen rendre ay hommage ñun en réalité leen tuddee ay tali leen tuddee ay école Faidherbe bi kese maa ngi cité Faidherbe dans le livre mais Faidherbe est extraordinaire Faidherbe sax daf ko doon fooy di ko waxtaan ak ay famille yu nekk France leen bind leen vraiment nègre yi te j'ai tué nanga bi nègre bi a brûlé des villages entiers jël ay maîtres coraniques yi nga xam ne jàngkatu Alxuraan lañ tey leen fusillé leen confisqué seen ay bë seen ay xar ba nangu seen ay seen ay seen ay doom bu dee ay kilifa lañu ñu jël seen ay doom yóbbu ko seen école pour former ko école des fils d'otage pour kooku nekk un vrai vassal bu dee ba doomi baadool la nag mu def la esclave wala mu rey la Faidherbe a fait plus de 3000 morts dans le Waalo kese ak dans le Fouta ci nu mu nu mu ñàkkoon nu mu doyadiloon nit ku ñuul pourtant Faidherbe tuddee nañu ko euh, euh, tuddee nañ ko pont tuddee nañu ko lycée tuddee nañ ko tali jox nañu ko statut mais Faidherbe dafa mel ni moom yaayam en tout cas liggéey na moom liggéey ndey ñaan liggéey ndey moom am na liggéey ndey parce que Sénégal c'est c'est un peuple vraiment extraordinaire c'est pas le seul Bourguiba bi ñuy jaar bi ñëw Habib Bourguiba c'est quelqu'un qui était réfractaire aux musulmans Habib Bourguiba dem na ba tere polygamie en Tunisie daf ko tere tere jullit yi ñu woor nag ku woor doo productif mu tere ko tere julli ci administration bu fi kenn julli sa yëfu naafeq yi nekkuma ci parce moom il il cachait pas que c'était un xam ne qui n'ont donc moo tax je je damay tudd ñoom Abdou Diouf ak ñoom je les écris dans le livre parce que ils le cachent pas il dañ ko dañ nest pas c'est des maçons un franc nag c'est quelqu'un qui travaille d'abord pour la loge avant la patrie c'est quelqu'un bi nga xam gëmul dëkkam son frère de loge la gën a gëm c'est le cas de ñoom Blaise Diagne ñëpp ils l'ont pas caché nest pas donc Habib Bourguiba ñu dañ ko honoré par un grand boulevard bi nga xam ne bu ngand dañ ko tuddee c'est pas le seul il y a même des femmes ban jigéenu Sénégal yi suñu tuddee foofu rue amul mais pourtant tuddee ay française ay rue française yi xam ne amul lu ñu njëriñ Sénégal beaucoup de bâtiments dans ce pays là ñun xamuñu lu muy tekki il est impensable nga dem Paris gis benn rue Adolphe Hitler quoi à Paris c'est impensable parce que Hitler a fait subir aux Français benn benn benn terreur quoi di ko màggal c'est marqué ba tey l'infériorité française euh, devant le peuple allemand moo tax les Français on ont effacé toute trace allemande dans la pourtant le régime de Vichy les Allemands dañoo changé woon tur dëkk yëpp ah de 1940 à 1945 avec le maréchal Pétain ils ont tout changé mais ba ñoom de Gaulle ñëwee ils ont compris dañoo changé waat lépp def ko ay mbiru français doo dem Paris fekk fa benn rue par exemple rue Seydi Hadji Malick mais ils le feront pas Seydi Hadji Malick ñoom dañoo jàpp ni kii amaluñu njëriñ wala benn rue El Hadj Omar Foutiyou biir New York ils le feront pas pourquoi ñun toujours nous sommes derrière ñun on continue di leen jéem a neexal di daw seen ginnaaw dans nos programme scolaires dans nos dans noo rues dans nos dans notre civilisation dans notre rapport à l'histoire bëgguñu sax jàngal suñu bopp man je dis même dans le livre je le di Thierno Souleymane Baal li ma xam ci moom en matière de réforme nekkul école tubaab ma ko jàngal l'école française jàngalu ma ko et c'est pas le seul Abdoul Khader Kane on ne l'apprend pas à l'école primaire lay xaw a wax tuuti Thierno Souleymane Baal révolution fa lay am mais la révolution lan la làmboo ce n'est pas dans notre constitution pourtant révolution française mu ngi suñu constitution c'est que la république sénégal la république française du sénégal euh, parce que mooy le secret c'est le secret que beaucoup de gens ne savent pas arabe yi peut-être ñoom imam babacar Sylla ñu ngi fi ak ñoom sëñ Sarr ñiy jàng arab xam na lu ñuy woowee xasf donc éliminer euh, benn mot tout en laissant ses effets dans la phrase doo gis jamais si àdduna bi ñuy wax république de la France amul dans aucun document de la France doo fa gis ni bind fa république de la France ça n'existe pas wala république euh, de l'Italie amul tu le verras seet leen je vous mets euh, je vous mets au défi dem leen dans les documents officiels de la France vous verrez pas république de la France vous verrez république française vous verrez la république luxembourgeoise la république italienne mu ngi moo nekk sa ay pourquoi ñun dans le le précaré doo gis jamais nga bind république sénégalaise jamais on écrira toujours république Sénégal république la Guinée république de il y a toujours un qu'est-ce que, qu'est-ce que cache cet article-là Et lii pourtant, c'est des choses qu'on n'interroge pas, qui sont tout proches de nous, mais gars yi duñu ko interroger parce que jàpp ni euh, c'est pas méchant. alors que c'est c'est tout c'est c'est c'est horrifiant sax c'est pas méchant mais c'est horrifiant donc euh, bëgguma guddal parce que ma jàpp ni peut-être euh, l'essentiel a été dit donc encore une fois xanaa remercier ñëpp ñu fi teew di am mbégte xam naa ne jotaay bi maa ngi fi gis ñu bari les gars yi von intervenir ñoom Makhtar déjà donc ñoom Alfoussé yi nga xam ne ñoom ñooy waa méthode ñoom Abdoulaye Diène gars ñu ngi fi donc euh, je vais laisser la parole à ñu bëgg intervenir ñu bëgg euh, poser question wala ñu bëgg indi seen seen participation xanaa peut-être di remercier waat encore une fois euh, Elimane Elimane Kane ak Ndongo Ndongo moom xaadi mu ngi ko wax léegi mais war nañu koo njukkal te war nañu koo màggal il est sorti en tant que sénégalais dem au championnat du monde de ba pare indi ndam c'est pas c'est pas c'est pas du lu ndaw yemul si ndam boobu sax moom mu ngi toog fi Sénégal sax di andi ndam chaque jour parce que chaque instant mu ngi bokk xam-xamam mu ngi bind euh, mu ngi jàngale moom tamit c'est un intellectuel au sens premier du terme wax dëgg yàlla moo ko Eliman ñëpp maa leen di bëgg wax dëgg yàlla euh, seen jotaay seen teew dafa am solo Mansour Mboup moom moom euh, il était déjà prévu sax moom waxul waxaloo Clédor Clédor moo bañ a wax yow sa bopp nga waxal ndax si ñu war a wax muy ku bëgg Sénégal te ku ku wax dëgg yàlla Euh, man kenn ku ma naw la ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla moom Clédor euh, Maxtaar donc euh, sans plus peut-être du bëgg ba guddal donc am na lu bëri lu ma bëggoon wax nag wax dëgg yàlla mais jàpp naa ni dinañ ko sàqal yeneen jamono donc tey ñu déglu tey peut-être ñi am lu ñuy wax parce que man li ma waroon wax peut wax naa ko pare